mbokk yi islaam du diinay fo diinay jaamu yàlla la waaye lu ñuy def ci yonent bi lañ ko war a jële xam ngeen phénomène bi am ci koor gi senegal lu nekk nga fiy dégg am nañu ay ustaas yoo xam ni bis bu nekk wàcce nañu jaamu yàlla bu bees ci diiney Muhammad lii ñu def ñoom ñépp maa ngi leen di lancer défi maa anzala allahu biha min sultaan du dëgg du sunna du diine muhammad jàngalewu ko sahaaba yi jàngalewu ko benn ustaas day nekk ci rajoom rek wala teleem wax ma ci yàgg ne naafilay bisub tay bi naafilay bis sos ngeen ci diine yàlla lu mu jàngalewul yéen ustaas yi na ci tele yi sos ngeen ci diiney muhammad lu mu jàngalewul yaa aysa nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam weeru koor ak lu dul weeru koor daawul julli lu ëpp fukki rakk ak benn waaw wala déet loolu de la hadis yi wax yow nag nga tëb ne naafila tey ñeent la waaw rakka bu njëkk bi faatiya 31 inna anzalnahu inna anzalnahu foo ko jàngee oustaz yaa oustaz maa ngi lay laaj ci ban mazhab ci mazahib nga ko jàngee oustaz yi yéen ñiy wax ci télé rajo yi yéen ñiy def émission naafila yi ngeen di joxe ci ban fan la ko yonent bi jàngale fan la ko sahaaba yi jàngalee julli moom la yàlla jàngal yonent bi yonent bi naafila ba weeru koor jeex musul wax ni bis bii juróom benni rakka ba ca topp fukki rakka ak ñaar ba ko manqué ñetti rakka yéen a ko sos yéen a ko lay di ngeen ko lay yowmal qiyaam te yéen a ngi réeral sénégalais yi di leen indil ay xuraafaat ak bidaa yu bokkul ci diine muhammad yéen ñiy déglu télé yi naafila bu ñu leen wax ci télé yi bu leen ko def du diine yonent bi jàngalewu ko du diine yàlla jàngalewu ko amul benn julli bu spécial ci benn bis ci lislaamu muhammad amul man maa la ko wax julli bu spécial ci benn bis ci diiney muhammad bii amu ci xanaa seen diine waaye amu ci diine ji kenn waru cee tëral lu muhammad tëralul boo nee nit ki nag naafila tey bii juróom benn rakka la bërkaati démb damaa mer ba noté affaire bi bi waa ji waxee ba pare saan xoolal ay théâtre kat théâtre ba pare nga bëgg jàngale ay dars ci théâtre bi waaw commencé alhamdulilah rabil alamin est-ce que tey bi li ci waa ji wax bu ko ci jàngatee nangam nangam xam nga yow oustaz ñu ngi lay fooyee dañu leen di fooyee mais am leen am leen au moins honnêteté intellectuelle am leen personnalité yéen ustaas yi moytu leen li ñu leen di defloo ay fokat ñoo ut seen télé di leen foloo di leen nax ci ay jeux yoo xam ni su ngeen leen ci tontoo wallahi yéen a ngi réeral nit ñi te yàlla dana leen ko laaj ndax ay fokat ngeen topp fa bu ñu fa woo leen xam nañ am na ñun jul woo de dofuñu billahi dofuñu ñu seeni invitation ak seeni spécial oustaz la ñu yore ñu yore islaam def ko tisi di dagg rek di ñawal gaa yi lu gaa yi def rek nga uti hadis bu ko tollool ragalal yàlla ci li nga jàng ragalal yàlla ci li ngay wax nit ñi ragalal yàlla ci meer bi jël naafile bi nga ko jox di ko def ndax xamut ragalal yàlla ci paa bi jël naafile bi nga ko jox di ko def ndax xamut ragalal yàlla ci ndaw li jël naafile bi nga ko jox xamut yowmal qiyaam bu la yàlla taajee ne la julli bii nga indi fan la am ci islaam doo am layam doo am layam lay moom nii la ko muhammad defee rek waaye muhammad julli na six rakka bu nekk onze inna anzalnaahu amul amul yaa ko sos yaa ko fi teg bakka na la ko def loo te di nga ko layoo